asalaamaaleykum waa Lou'Bess TV nuyu nañ leen waaw suñu mun naa wax ne suñuy partenaire ngeen léegi sax parce que léegi yéen nag ñuy teg loxo di ñu jàppale maa ngi nuyu samay membre waa Déclare voilà euh, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm maa ngi nuyu suñu partenaire waa fondation 221 parce que ñoom tamit ñëw neen jàppale ma xam ne seen rakk laa euh, tey ji mun neen ma teg loxo wan ma tamit euh, yoon bi bu baax a baax ca man tamit ma nangu bay bëgg de dee parce que tey jii dama naan ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a xam fan ngay tooge moo tax man dama naan leen ñu doxal man maa ngi seen ginnaaw voilà. déggu ma. yëg-yëg bi ma am ñoom xam nañ ko samay membres xam nañ ko parce que mun naa wax ne lépp li ma dugg ci social genre dama koy commencé ci man ba pare. mënuma wax naa ko la fois passée seen émission. mënuma tey jii nii tey jii nii mënuma par exemple tey tey jii nii mënuma mënuma gis koo xamante ne nii dafa ñàkk ca fekk man ma yor ma toog di ko seetaan muy tumuranke waaw mun naa ko commencé ci man commencé ko tamit ci samay membre ñun nekk waa Dhekla ci suñu biir dañuy def social suñu biir waaw nit ñu yëg ñàkk yëg dañuy jàppalante suñu biir voilà moo tax ñu naan képp ki jàppale Euh, sa moroom doomu aadama kon tey ji yàlla mën na la teg loxo jàppale la moo tax lépp lu ñuy def yàlla la ñuy liggéeyal voilà. déclare son plan d'action benn parce que déclare veut dire tout simplement déclarer l'état de la société à travers la dañuy yëngu ci art parce que yaa ngi ko dégg ñu naan déclare comme ni nga ko gisee nii bien art euh, à la fin kon tey jii nii dañuy liggéey ci affaire art. dañuy def ay prestation théâtrale am na ñoo xamante ne t-shirt yii nii ñoom ñoo ko defar am na ñoo xamante ne maanaam tout ce fait dans la vie c'est de l'art le fait que ma taxaw ne di rek di wax c'est de l'art kon tey jii nii euh, waa DECLA soxla leen ku leen teg loxo ñu dem euh, ci kanam parce que tey jii am na ay xale ñoo xamante ne am na ay xale yu am 10 ans am na ay mag ay 22 ans ak yooyu noonu maanaam génération bi yëpp ñoo fi daje. Euh, tey jii nii waa DECLA soxla neen tey jii nii par exemple am na ay élèves tey jii ni soxla neen ñoo xamante ne ni vacance bu jotee ñu teg leen loxo pour ñu jàppale leen ñu mën a liggéey pour subvenir à leurs besoins parce que man gëwuma ne que ne élève dafay nekk élève simple rek toog nekk ci zone de confort am déclare da lay génne ci sa zone de confort yóbbu la ci beneen def la génne li nelaw ci yow euh, te incha allah am neen projet yu bëree bëri bëri bi déclare te déclare incha allah li ma koy wax rek yàgg naa kaa wax dañ koy dégg fu sori incha allah voilà autorité yi ah ñu ñëw tamit gestu Dhecla parce que Dhecla nit ñi ñu ngi koy commencé xam et bëgguñu tamit mu yem fii bëgg neen Dhecla nekk au niveau international te incha allah ñu ngi siy liggéey euh, tey autorité yi bëgg ne ñu ñëw taxawuñu teg ñu loxo tey jii bëggatuñu sax di wàcc sur le terrain di kat bëggatuñu ko parce que Dhecla am na lépp lu ñu fi soxla li nga soxla ci jeunesse bi am na biir Dhecla am na ñoo xam ñu ngi ñu ngi ci biir environnement am na ñoo xam ñu ngi ci santé am na ñoo xam ñu ngi ci lépp. pour pourquoi pas ñu ñëw gëstu waa Declar xool leen ñu mun leen pousser ñu dem ci kanam man loo rek laay wax loolu rek laay ñaan ci bëgg naa tama samay maam ma leen di dégg ci ministres yi ci président yi ci fépp ci incha allah gëm naa ko parce que ay xale yu am jom leen. Mhm. bon bu ñu jógee ci ndogu bi ñu ngi dem ci orphelinat yi parce que li daaw dem nañ ci orphelinat bu nekk Pout. Euh, sant André Wade dem neen fa jàppale orphelins yi et tout ça programme nag bëri na lool lool lool lool mais liñ ci mun a tiire rek mooy que du yemuñu rek ci ndogu chaque weer koor dañuy dañuy joxe ndogu parce que loolu mun naa wax ne léegi joxe suñu deret la nekk voilà bu ñu toogee joxewuñu sax day mel ni que suñu yaram yi dafay raf parce que dañoo dem ba tàmm ko voilà ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo muy sponsor yi muy ñëpp ñu ñëw jàpp si ñu dem ci orphelinat yi ak ci prison yi euh, jàppale ñi ko soxla surtout prisonniers yi aussi parce que da ngeen foogoon ne prisonnier dañu leen war a euh, fàtte wala bu ñu leen tëjee rek mooy loolu ku nekk nattu la rek ku nekk tey jii nii fii nii mun na si dugg maara day taali mais tey jii nii nen xool ne suñuy sœur suñuy frère ñoo nekk si biir prison yi ñu ngi leen di geestu bu baax a baax a baax di leen bàyyi xel aussi sama moo de la fin du leen lu dul di gërëm waa fondation 221 di gërëm ñoom jaariyatu waa suñu pour aider euh, di gërëm aussi waa RDV di gërëm waa Lou'Bess TV euh, di gërëm sama xarit yi sama doom yi euh, mën naa wax ne sama tata yi aussi Dhecla daal c'est une famille Dhecla ci kaw ci kanam ci lu baax Dhecla un jour Dhecla un